jërë ngeen jëf mbokki internet yi dal leen ak jàmm ba tey say xibaar yi ñu ñuy topp sa su sun sen bi di live Dakar deux cent vingt et un la say gën a fes mu di loi de amnistie boobee nga xam ne dinañ ko yóbbu nag tey jii sa assemblée nationale nu warka kaa càmmat war kaa wote mu di député ya xamante ne si ne ñoo féete foofe sa assemblée nationale waa boobe rek njiitum réew ma sàkkoon ba tax rek ñu ne das koy yóbbu foofee sa assemblée nationale loolee nag ñu si bëree bëri Cissé xamle na am na lees waxul lu am sa ginnaaw luwaa boobe rek ñu war a wate foofe sa assemblée national am ñu ne sa waaw am ñoo xam ne tamit nee sa euh, déet ñoo ña xam ne ñoo di waa PUR ñoom rek nag lan wax na rek nu d'amnistie boobee ñoom ànduñu sa benn yoon pour rek daat koy wate ak li nga xamante ne si ne ñoo di seeni euh, député mu doon foofee sa assemblée national ñeneen genn wàll ga tamit moo di ñooñu Khalifa Sall ñooñee te ànduñu sa euh, benn yoon ñu si bëri nag la leen jaaxal mu di ñooñuy Ousmane Sonko ñooñee ñekk jamono ji sa lëwaada am na sëbi waxuñu sa waaw waxuñu sa ah, déet nag ñu fëskee naka rek càmbar rek tey ji sa ensemble national loolee nag ñu si bëri bëri loolu ma leen daati eh, jaaxal mu di ñooñu Ousmane Sonko di député yooyee waxuñu waaw waxuñu déet sa boobee nga xam ne moo di lëwaada am na sëbi ñooñee di wax PDS moom nee na rek lu waa yeewi askan wax rek sa la